waaw tali boobu dama ci indi ay leeral rek ñu xam ne tali bi ci programme FERA la bokk parce que euh, man maa jël courrier bi nga xamante ne nii mu di le euh, courrier numéro 4 euh, CTHM du 20 janvier 2020 laa dugal courrier boobu au niveau du FERA ñu recevoir que le 23 ci même mois bi pour demander à ce que ñu defar euh, piste bi nga xamante ne nii dafay jóge euh, yarwaay euh, jëm si caxar donc piste boobu bi ma ko dugalee également ci laa wëlbatikuwaat dugalaat beneen demande boo xamante ne nii ñu ngi ko introduire maa ngi ko introduire le 2 décembre 2020 ci numéro 45 CTHM pour ñu bitumer li nga xamante ne nii moom mooy diggante caxar ak Kër Daam parce que boo xoolee diggante Thiaroye ak Kër Dame yoon bi dafa xawoon a metti tuuti dafa xawoon jafe-jafe dafa amoon ay jafe-jafe ci loolu itam ak suñu coopération décentralisée ñu amay minibus yoo xamante ne dañuy def transport élèves yi loolu moo taxoon ma bind demande boobu FERA pour que ñu defal ma bitumage diggante Caxar ak Kër Dame loolu programme bi bi ma toogee ak euh, administrateur bi mu nangul ma loolu ba liggéey bi actuellement nii mu ngi en mu en cours beneen bi ci des mu Euh, beneen piste boo xamante ne ni PUDC la moom moo ko moom moo koy réaliser pist boobu dafay jóge euh, Laañaar euh, jaar Njabaay jaar Njaañ bu mi jaar Dagga wëlbateku jaar Ndax dem bay jub yarwaay ci ci ci juste jaar jaar mën naa sax jaar yarwaay parce que buntu yarwaay la jaar après génn mën a dem waxal jàmm pour rattacher piste latéritique bi nga xamante ne moo jóge Bambey dem ba dem ba waxal jàmm donc loolu nekk euh, ci programme PUDC donc juste euh, pour revenir ci tali bi nga xamante ne moo war a jóge Caxar jaar Caacaw Jokkul Njóobeen Njaageen jaar Ndax door a dem door a dem Yarwaay piste boobu noonu la demee teyit noonu la ñu ko bindee toog ak directeur u FERA waxtaan ceeg moom piste boobu nag lu nekk maa ngi ko ciy dégg mhm. waaye damay wax rek ne kilifa buy wax surtout koo xamante ne dañu ne ab député nga muy en l'occurrence madame euh, Aïda Mbodj dafa am yu bëri yoo xamante ne su koy wax itam man jàpp naa ne bu demee ba war a ñëw ci commune war naa mën a xam yan programme ñoo fay intervenir war naa mën a xam programme yooyu kañ lañ ko def ak kan moo ko def waaye nag euh, ñëw ci ab commune di jaxase sax programme yi xamul bii pis PUDC la xamul bii feeraa la xamu ci dara xamu ko ci ba pare wëlbatiku ñëw di indi fi ay ay ay di jaxase ay lënt-lënt loolu damaa jàpp ne wax dëgg yàlla boobu politique dépassé nañ ko politique da ngay def rek ngir yàlla politique aussi da ngay wax rek li nga xam te yàlla tax waaye wax dëgg yàlla li mu wax ci wàllum yoon woowu dara amu ci parce que bu ma déggee euh, wax ci kii boobu moom bindoo noonu ñoom ndax d'accord ci noonu la demeewul noonu xamu ci dara parce que bi muy wax dafa jaawale sax programme yi. Mm-hmm. xamul PUDC xamul FERA. wax ne après dañu dañu détourné tali yi te loolu xamu ci dara xamu ko ci lii ma la wax nii mooy li nga xamante ne nii noonu la noonu la demee te wax dëgg yàlla euh, man jàpp naa ne politique fi mu ne dañoo dépassé politique boo xamante ne dangay ñëw di nax nit ñi di leen wax loo xamante ne nii xamuloo ci dara loolu vraiment c'est c'est c'est regrettable e c'est déplorable euh, ci kilifa goo xamante ne nii gu gu toll noonu la man dama jàpp ne su demee bay war a ñëw ci département war naa mën a xam wala ci commune war naa mën a xam programme yi nga xamante ne ñoom ñoo fay de ñoom ñoom ñoom lañ fay déroulé koo xamante ne nii bi nga nekkee ci ndënd yi waroon a defar defaroo tey nga nekk opposition boo bëggee ne mën ngaa defarab tali wala mën ngaa defar ay loolu da ngay nax askan wi donc loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo ci des moom na xam ne doomu xar fa mu mën a dem toog doomu caxar mën nañ faa dem toog ndax lii PUDC piste bi ma lay wax nii bi jóge laañaar jóge bi jëm euh, jóge laañaar jëm waxal jàmm bi ñu koy defar fii la ñu ñëw def fii la ñu defee tracé si sama bureau te boobu sax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yore di ko exécuter sama étudiante sax mu nga ca koo xamante ne man maa ko formé mu nga ca kon daf ci am yu bari yoo xamante ne nii man su ma ciy wax rek li may wax dama dafa ma leer parce que dama ko xam donc bokkuma koo xamante ne nii day tâtonner pour désinformer nit ñi pour euh, wax ni ñi ne leen xaj na peut-être xam na te xamu ci dara beneen bi ci des euh, yenn yi ci des yëpp xam nañ ne politique moo tax mu koy def parce que bu bëggee dem ci dëkk bëgg a neexal dëkk booba dem ba assemble wax la muy wax biir assemblée ba pare génn dafa live am di ci tudd ay tali yoo xamante ne tali yooyu laata mu koy tudd fekk na programme yi defar nañ ko ba pare ba ñu commencé lancé appel d'offre yi yépp mu def ko ba pare wëlbatiku di dafay live loolu damaa jàpp ne wax dëgg yàlla ci kilifa jekkul rafetul waaye nag loolu aussi damay lancé waat appel population yi xam ne seeni doom li ñëpp mën mën nañu ko fa ñëpp mën a toog toog nañu fa te li nga xamante ne nii ñoom mooy dem ci seen dëkk xam nañu ko te it xaaruñu ci ma sàmba xaaruñu ci ma demba bokkuñu koo xamante ne nii bu fi duggee bala fiy duggati élection moo jot législative la fi gëjoon élection moo jubal si waat mu ñëwaat fi kon kooku bokkuñu kooku lii xew caxar mënu koo xam donc loolu laa bëggoon aussi mu leer ci boppu population yi waaye yar waaye xam ne tali boobu muy wax noonu tali boobu demewul noonu tali boobu man maa bind man maa wax maa toog kilifa yëpp ba liñ ci war a defar defar nañu ko te projet bi nga xamante ne ni mooy tali boobu wax mu war a jaar ni jaar jokkul jaar njaagay rek njóbeen ak ndax ba dem yarwaay tali boobu ñu ngi ci te courrier baa ngi nii nga xamante ne nii euh, moom la ñu bind donc liñ leen di wax yëpp kurée yaa ngi nii bii feeraa bii itam mooy piste bi nga xamante ne nii mooy pistu yarwaay bi donc loolu nag mooy li nga xamante ne nii moom moo ci moom moo ci nekk donc beneen bi ci des kuréel yëpp moo nekk nii donc ñun amul lenn loo xamante ne dañ koy wax di ko di ko di ko di ko bañ a teg foo xamante ne fu yenu maanaa la fu wér la fu wóor la donc mu xam ne euh, walla population yi xam ne ñun fi ñu war a dem ñu ngi fay dem te li ñu war a wax ñu ngi fay ñu ngi fay wax beneen bi ci des bu toogee ba élection jot mu ñëw fii di këppatal nit ñi nit ñi yeewu nañu population wu caxar suur nañu démb tey door a ñëw parce que mënoo xaar ba élection jot nga yëkkati lu war a toll naan 500000 naan da ngay def avec avec boo koy def da ngay def ci ay groupes yoo xamante ne c'est des groupes organisés ay groupes yoo xamante ne nii ñëpp xam nañ ni ñii ñooy ay groupe euh, yu am amay kayit yu amay papier nga toog ak ñoom wax ak ñoom signé ak ñoom mais xaar ba nga xamante ne nii élection moo jot. mu yor ak leketam wala keesam ne day këppatal nit ñi caxar suur nañu démb tey door a ñëw waaye na xam ne nag jigéenu caxar suur nañu parce que ku denc 12 millions 2605 francs ci say koppar yaakaar naa ne 500000 këppatalu leket moom buy naxi bay dafa nekk bay dafa fekk bay waxiif moo tax ñu naan leketu neen du naxi bay waaye nag cinquante mille cinq cent mille am yooyu na fekk na xamante ne waa caxar dañoo suur démb ak bërki démb jigéen ñi caxar dañoo suur démb ak bërki démb moo tax cinq cent mille am yooyu na ko jël euh, cinq cent mille am yooyu mënu fëkk fii kenn xam nañ li tax mi nga xamante ne moom moom moom moom lay def beneen bi ci des bu respecté woon waa caxar respecté au moins dëkk bi nga xamante ne xaj na peut-être ne na dëkku baayam la ba ne jumaayu jumaawu baayam la mu am kilifa goo xamante ne kilifa ga jóge na fa tegu fa sax tànkam tegu fa sax tànkam wëlbateku ne jumaay jumaaye baayam la man jàpp naa ne bu fekkante ne dëkk ba ñor na ko ba mu koy wax booba ba léegi ay atti atti at la la koy wax mënut a fexe ba defar fa dara waaye ñun du ñu ànd ak koo xamante ne day diggee wala muy wax loo xamante ne du ko def honorable Khalil Fall bi ma ànd ak moom ba mu demee julli ca jumaa ji ba génn ca bés ba ba bés bay dellu si la wutal jumaa ji ay ñun du ñu ànd ak koo xamante ne nii day wax te du jëf kooka bu nee jumaa ji ñor na ko xam naa ne jumaa ji ñor na ko loolu euh, mu nekk loo xamante ne da koy wax pour jéem a lëndëmal nit ñi pour jéem a euh, am sympathie nit ñi na xam ne politique boobu politique boobu dépassé nañu ko léegi politique bi nga xamante ne mooy politique bi bi jàll fi mu nekk mooy politique de développement nit ñi da leen di indil lu concret teg ci table bi ñu xam ne lii lu concret la waaye du ay wax donc loolu itam lu xamante ne nii lu war a lu war a leer la beneen bi ci des euh, xam naa dafa xamul caxar waaye nag bu xamoon caxar dana moytu caxar parce que nag li ko metti lépp caxar la jóge dafa wax ne daf ñu fi jële bi ñu nekkee fii maire 2014 jéem na ba sonn ba tële ba daanu na te ba mu jógee ca loola ca la ñu ko destitué conseil départemental bu Bambey. c'est pas responsable euh, responsable euh, am na yu bari yoo xamante ne nii wala nga nekk républicain boo demee ci combat ba justice daane la da ngay xam ne da ngaa daanu nga nangu ko ñun mësuñoo def transfert d'électeur te bi mu xamee ne doomi caxar léegi yeewu nañ ñañ ñu defoon transfert d'électeur yépp yóbbu leen bureau de vote am Bambey ba tax looloo taxoon mu daan gagné bureau de vote am Bambey dañoo nanguwaat électeurs yooyu delloo siwaat leen suñu commune xam nañu fi ñuy jaar te moom itam xam nañu ni mu doon defee politique politique boobu moom jeex na politique boobu jeex na politique de développement moo fi nekk heure bii li ko waroon mooy toog encadrer jeunes yi te xam ne dem na retraite retraite nag soo cee dem da koy nangu woo population Caxar yépp ne leen bu ñuy wax politique dëgg mooy politique de développement politique amul xastante amul ŋàññante amul wax yu bon amul wax loo xamante amul sos aussi man loolu laa gëm loolu maa ngi ciy woo ñëpp parce que nag quelque soit alpha politique dafay jàll waaye nag li ñuy wax ci politique aussi du jàll parce que nag euh, wax moom boo ko see wax mënatoo ko téye kon nag nañu fexe ba ñu sàmmonteeg loolu je lance en appel à tout le monde pour que lii nga xamante ne nii mooy élection yi ñu def ko ci jàmm def ko ci njekk def ko ci respect ba nga xamante ne lu génn ñu xam ne loolu la yàlla dogal